présidentiel goo xam ne dees na ko am ngir amuk présidentiel coow li coow li mooy ku mu woo nga ne dew ma moom Sall wooteeb ndajeem tribune yéen a kaay naan koon moo taxit moom président Macky Sall boppam la doon waxtaanal ndax ña fa toog ñëpp raay mbelle wax ak la ko saf muy ree tex tex loo def noonu la daanaka la ñu dégg ni ki démb ci dialogue national ba yéen a kaay dee média bi naan ma déet bul waxub dialogue waxtaan la goo xam ni président Macky Sall moo ko séq ak président Macky Sall ay ñooñu président Macky Sall di waxtaan bee raay seen biir waaye jàkkaarloog Sall wax koy mooy dëgg bariwul ñu ko fa def ni ki démb ndax démb ñu bari ci ñoo xam ne ay politiciens lañu waaye tam ay acteurs sociaux dañu ne Sall bàyyi nañ la ak sab ndaje yaa woote waxal defal jëfal ñun ñëwuñu moom président Macky sal naan leen abon ah kon jàpp naa sama dat dat wi ko laataa ñuy daal di soobu ci naweta vox populi mel ni ku naan teex teex may ree président Macky sal day nee na doyal na sëkk waaye dat wi mënu ko jàpp feeg nag yéen ci ay feet jàllul yéen kaay bi naan man président Macky nee na balaa balaa ñooy jàpp dat korité ba nuppi président Macky Sall nee na balaa ñoo jàpp dat pak daal di weesu président Macky nee na balaa ñoo jàpp dat tabaski daal di weesu président Macky Sall nee na balaa ñoo jàpp dat dàkk bu Medina Gunaas daal di weesu moom Sall naan leen mu leen lu mu yeex yeex laataa nawet bi laata moo taw di ngeen am seenub dat tribune yéen kaay naan man église baa ngi ko naan hee yow Sall yow la ñuy waxal dama ne la respecte institution yu réewum Sénégal jàppal dat laata ñaari fan ci weeru avril mooy dëgg laataa ñaari fan ci weeru avril lii la la conseil constitutionnel daal di digal ngir nga jàpp ciw dat ngir élection présidentielle yi am leneen loo ci def ma ni la daal di caxat caxatee dëgg dëggaate la nga xam ne institution yi réewum Sénégal ñoo ko di bëgg xam nga Sénégal dafa am ay banqaas yu dëgër banqaas yooyee bokk na ci ba ca gën a kawe muy conseil constitutionnel koo xam ne mooy tëgg te mooy wax a gañe moom conseil nee na la yaa xayti mu laa càttum Sénégal nee na la laataa ñaari fan ci weeru avril sal da nga war a able waaye balaa ngaa able da nga war a weccoo léngay sàll mënoo dem te weccoo léngay weccoo léngay day àndu jàppub dat waay waay l'église bi ne ko jàppal dat te dat wi nag na doon laataa ñaari fan ci weeru avril le quotidien le quotidien naan kon président Macky Sall ni ki démb yebbil na leen dënnam naan leen du jàppu dat moo nu fi andi xam nga bu ngeen waxee ba féewaloo daal di am ñu waxtaan ba génn ci ndaje mi te jàppu ñu dat man Sall dinaa leen jébbal nguur gi ñaari fan ci weeru avril vox populi naan président Macky Sall ma nga naan damaa doyal sëkk laas kay la woote ba naan kon boo bëggul da ngay dem fukki candidat ak juróom-ñeent yi nga xam ne tabb nañ leen ba noppi ngeen tëgg élection laataa ñaari fan ci weeru avril mbir mi jeex l'info naan kon démb day l'église ba amul lu mu bàyyil président Macky sal naan kon respectel suñu institution mooy dëgg tëggal ay élection laata ñaari fan ci weeru avril nga bàyyee ñu suñum réew naan kon Sall erreur moom mënta ñàkk waaye erreur lu mu am am am na solution ngir daal di koy joyanti loo mën a defit yow Sall processus bi na wéy élection laataa ñaari fan ci weeru avril 2024 lu ne mën naa ne ci réew réew mi l'info naan man Amadou Ba ak Abdallah Dionne ña naan processus bi na wéy spolié yi naan président Macky Sall déet ca lañ dang ñoo woo laaj ñu suñu xalaat te suñuy xalaat nag leen dong la képp moom moo di daal di tëggaat mbir mi ña nga xam ne dañoo seppi seen loxo te ñu war a bokk daal di bokk libération yéene kaay naan Sall ma nga naan leen teey leen rek laataa nawet gi daa am seen élection coow li coow li yéene kaay bi naan a mooy fii juróom benn fan ci weeru mai 2024 bi xam leen ni élection du am ci Sénégal ndax Sall nee na mënuñoo dem élection tànk wooruñu ba wori kerceen yi woor ba wori dàkk bu Medina Gonaas am ba nuppi te lii lépp nag du am laataa juróom benn fan ci weeru mee wal mai Walf Quotidien naan kon woote nab dialogam gaa yi boycotté ak dialogam mu waxtaan ak ña muy waxtaanal taxul déggoo am ci seen biir Serigne Mbaye Thiam chercheur naan ko déet lii kay dub dialogue ab farce la daanaka su web moo gën a rafet li amoon démb ñoo xam ne ay ci wàllu politique ba ñu faatoo ci wàllu politique yàgg na ñoom ci boppam rek ñoo xamagul ne faatu nañu ñoom nag ñoo dem di wallu président Macky Sall waaye wallu gi wallu gi taxul ñu amub dat le quotidien le quotidien naan en tout cas président Macky Sall moom nee abana gas yi dem ñaari fan ci weeru avril lay def te day daw xëteet ndax doyal na sëkk ci seen réew di Sénégal l'observateur naan kon bëgg na dialogue am ngirub dat waaye ay heure la ca daal di jële di na mu njaay siise di pexe ngir président Macky Sall dajee candidat yi nga xam ne dañoo jàll ba nuppi spolier mbir mi kay dooraat à zéro lu ko mooy ay élection du am ci réew mi bés bi le jour naan man en tout cas président Macky Sall ma ngay tontu waa SC 25 ma nga fëgg dëndam naan leen man maa yor date bi te maa ko mën a jàpp le soleil naan ma Macky Sall nga naan leen aw ma benn agenda personnel la ma bëgg man Sall mooy dem daal di leen di bàyyee seen réew te bu may dem nag dinaa fi taxawal ab loi d'amnistie maître El Hadj Diouf naan ko déet Samba si naan ko déet ña nga naan président Macky Sall boo ko defee dóor sab loxo ci ëkk tee ngaa a baal gaay naan kon tegal foofu sa baaraam ma ñëw xamal la ni président Macky Sall jàpp naw daal wala bu ko jàppulit à peu na ko nee nag laataa nawet gi Sénégal daañu dem ci élection présidentielle le quotidien le quotidien naan kon laataa loolu moom président Macky Sall nee na day baale jéggale loi d'amnistie dees na ko yóbbu ci assemblée nationale àllarba ji le témoin yéene kaay naan kon lan defoon diggante 2021 jàpp 2024 moom Sall nee na da koy daal di faase baal ñëpp ñoo xam ne jàppoon nañ leen ci wàllu manifestation effacé it ña nga xam ne génn nañ kaay naan kon mbaadu protocole bu Cap Manuel dafa daal di am en tout cas Cheikh Yérim Seck ma ngay xamle ni moom président maki Sall fii mu teg tànkam réeroowu caak Ousmane Sonko lépp loo xam ne Sall def na ko Ousmane Sonko ko validé moom Cheikh Yérim Seck naan di ba ak Ousmane Yara ñoom ñooy acteurs yu négociation yi ñoo daal di dox diggante Ousmane Sonko ak président maki Sall waxtaan wi nga xam ne dox na diggante Sonko ak président Macky Sall tax na di tunu politique yi tàmbalee génn ci réew mi te dina tax nag amnistie daal di am ci réew mi réeroo am na kër Pastef de ma ngay tàkk ndax réeroo nga xam ne am na ci wàllu libération gi ci amnistie gi waaye tam ci dialogue bi l'observateur nan kon laataa loolu ngir sàll dem askan wi ci boppam ñoo ko mujj di diril ci ni ki tey wil mort lañ daal di woote ci talaat ak tey jii daal di lompañal lépp luy liggéey ci réewum Sénégal jaay jënd du am ci réew mi faju du am ci réew mi njàng meeg njàngale du am ci réew mi télécommunication dees na ko dakkal ci réew mi Sénégal gépp takku ba dëgër ni sayub saxaw naan président Macky Sall yaa moom saw ñoom suñu doole suñu ñaq wii lañ nangootul mu siim seenub cere liggéeyu ñu mani la ville morte la ñuy def fi mu ne coow li coow li mi ngi ci xëccoo diggante candidat yi jàll ak spolié yi ndax ña jàll bi nañ conseil constitutionnel naan kon élection yi na nu mu gën a gaawee ak ñun candidat yi ngeen jàpp na ñoo jàll spolié yi naan leen du fi ame tey du fi amee ëllëg ndax mbir yi ci boppam moo daal di lëndëm ba maar day taal yi direct news naan leen werante leen rek ban daal di seyal conseil constitutionnel ndax lii ma gis muy daal di xeeñ su nekkee di dëggaatee ka loolee conseil constitutionnel bi la ñuy daal di sayal te buñ ko seeyalee mbir mi gën a ñaaw fa yàllaaxu Omar fay leeral